li ñu seetlu mooy dañuy manipuler des chiffres boo xoolee naka la ñuy def ba am budget bu toll noonu ba yokk ko fi ñu jël alal ji foofu baaxul yoon boobu du yoon bu baax muy lépp lépp dañ ko basé ci lépp alors que on a euh, d' autres voies yoo xam ni waroon nañ fa mën a utee xaalis bu ñu financer suñu économie pour mën a bàkkoo ci croissance ak budget bu yokk ci findeel euh, ni ma ko mën a euh, caricature mooy boo yoree par exemple sa kër ñetti nit nekk fa ñuy sóor euh, ñaari kilo ceeb bu demee ba kër gi yokk fukki nit ñu yokk di soor ñeenti kilo ceeb ñu ci bàkku mais loolu c'est c'est tout à fait normal li ñu war a seet mooy mérite la quand même non attendez li ñu war a seet mooy est-ce que ñooñu di dund ci kër googu mhm. buñ bëggee faju dinañ faju buñ amee soxla dinañ ko faj bu ñu bëggee jàng dinañ jàng n'est-ce pas est-ce que ñooñu eh, ñi ngi lekk ba suur foofu la question bi nekk donc bu ñu xoolee xayma ci ni nga xam ni ñoom ni la ñuy natt budget nga xam ni lu ci ëpp dañ koy def ay dépense de prestige wala day nekk euh, loo xam ni euh, dañ koy dépense li ñuy utiliser ñoom muy train de vie de l'État am solo donc ñun li xalaat mooy. et et surtout am na benn question boo xam ne aussi ba léegi di 2020 xamuñu liñ nattoon daaw fan la ci toll ci liñ ci utiliser waxuñu ci dara waxuñu euh, maanaam euh, euh, comment dire fan le taux d'exécution du budget de 2020 toll ñu ñëw di wax dañuy yokku plus de trois cent 373 milliards di ko bakko pour man loolu loolu loolu loolu amul solo li am solo mooy fan la ñuy jëlee. li nga xam ne moom la ñuy financer suñu économie naka lañ koy jëfandikoo maanaam fan la ñuy orienter les investissements muy les secteurs prior prioritaires ak ban jeextale am ci askan wi parce que boo xoolee budget bi yëpp dañ ko dañ ko wékk ci leb te ñi lay lebal ci jamono ji bi ñu toll contexte actuel bi muy les occidentaux ñoom ñoo lay wax fi nga koy orienter fi nga koy investir nga xam ni muy affaire infrastructure seeni euh, entreprise ñëw liggéey ko ñu jël dividende yóbbu ko à l'étranger mais ñooñu actuellement dañu am jafe-jafe mm-hmm. parce que boo xoolee mm-hmm. covid mi ngi yokk ñooñ bu ñu demee ba ñooñu mënatuñoo lebal fu ñu moo tax Sénégal mm-hmm. li ñu war a xool mooy nan lañ war a mën a fexet ba suñu budget ñu prévoir ci nos ressources naturelles parce que ressources yi wax dégg nga fii euh, mooy les contrats yi nga xam ni daf nañ ko sax saxan muy ba gaz beeg pétrole bi et cetera et cetera ressources halieutiques bi dégg nga ci problème yi fi am. ñu jël euh, un contrat sur cinq ans moyennant dix milliards. alors que ñun suñu suñu programme dañu wax ni suñu bàyyi woon ñu bàyyil ñu suñu géej gi mhm. suñu mool yi am jën yu napp jeunes yi dootuñu daw di gàddaay di dem di jël loote di dem di dee ci géej gi en un an mën nañ leen jox dix milliards yi nga xam ni moom la ñuy euh, jaay suñu géej gi pour cinq ans. donc loolu je pense que expliqué nañ ko sur les sources de financement